tey ñu war a jël ñaar fukkeelu aaya waaye du ñàkk rek ñu dellu si tuuti rek ci aaya 19 lu tax parce que dafa am solo ñu xam ni gars yi bi ñu leen dumaa ca xare ba dar duma yi ñu leen duma yàlla da leen a fàttali nag ni in tastaftixu faqad jaakumul fath du yéen a doon wax bu njëkk naan waaw yàlla ku ñun ci ñun abu jahrin da doon wax naan képp koo xamante ni ci ñun mooy tas mbokk gi mooy tasaare famille yi mooy tas sëy yi mooy indi problème yi ci kër yi mooy indi problème ci diggante ba parents yi seen doom yi yàlla na nga ko toroxal jàppoon ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam gaaral loolu demoon nañ sax ba koy wax naan ko yàlla bu dee su fekkente ne lii mooy dëgg nag tawal ci ñun xeer du ñoom ñoo doon laaj yooyu yëpp yàlla ñun jeex na mbir mi dikkal na leen ca badar te nag te nag du duma ma fi yem de wa in tantahu foofu wa xayrul lakum bu ngeen daytaloo yam loolu moo gën ci yéen ma yem foofu waaye wa in taudu naud bu ngeen ca delluwaatee rek ma delluwaat ca na leer te nag du leen jariñ dara nag du leen jariñ seen mbooloo yi du leen jariñ dara donte leen dafa bari lu seen mbooloo mi bari bari du leen jariñ dara ndax yàlla moom moo am ku mu àndal te ku ànd ak yàlla sa ànd wóor na te wa anna allaha ma al muminin yàlla mu ngi ànd ak gaa yi gëm yàlla foofu la ñu borom bi subhanahu wa taala ñëw nag ni tey yaa ayyuhal ladina amanu lool na ngeen ko bàyyi xel bu baax ci suuratul anfal daf ci bari lool lu yàlla di def ni daa aatu rahman li dafa bari ci saar bii di suuratul anfal yàlla ni yaa ayyuhal ladina amanu dafa ko jeexale wa anna allaha maa al muminin pare ni yaa ayyuhal ladina ci alquran alquran lépp ay connexion la oustaz mi yu duggante yoo xamante ni nekkul nu la neex nga koy waxee macha allah ñu ziyaare bu baax oustaz Medoune mi nga xamante ni moom lañ fi loon moom ngeen seetaan keroog ci alxames bi ak ci weekend bi yëpp waxtaanam bu am solo boobu mu defoon ci éducation wax dëgg yàlla jullit yëpp rafetlu nañ ko réew mi yëpp rafetlu nañ ko macha allah jot nañ ci ay appel jot nañ ci ay xalaat yu bari ci ñu yàlla na la sàmm ko aar ko mu ni kon yaa ayyuha alladina amanu yéen gaa ñi gëm yàlla wa rasulahu ah, na leer de yàlla nee na yéen ñi wax nii da ngeen a gëm yàlla imaan nag du ay wax de laysa al imaanu bi nii wala bi taxalli walakin maa waqara fi l qalbi wa sadaqahu l amal gis nga imaan du ay waxi kese rek ak ay takkaay gooy takk ak col gooy sol ak déedéet nee na du yooyu mooy imaan de nee na imaan ci xol lay ne waaye say jëf ñooy confirmer sax li nekk ci sa xol maa waqara fi l qalbi wa sadaqahu amal mun kon yéen ñi nga xamante ni yéen wax ni gëm ngeen gëm na kenn mënu cee nax yàlla ku wet di laajal arab yi dan daan ñoo naan yenente bi aman naa ñun gëm nañu gëm nañ gëm nañ yàlla ni ko qaalatil arabu aman na qul lam tuminu walakin qulu aslam naa wa lamma yadxulu al imaanu fi qulubikum du caaxaan mbokk yi gëm yàlla du caaxaan ci ndorteel saar bi di suuratul anfaal waxoon na la ko innama almuminuuna alladina ida dukira allah wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatu zaadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluun lool la ko yàlla limale woon ci bopp saar bi ni gaa yi gëm yàlla mooy ñi nga xamante ni su fekkente ni dégg nañ ñu tudd leen yàlla seen xool day yëngatu suñ leen jàngalee aaya yàlla it loolu dolli leen imaan yàlla ni ni wa ala rabbihim yatawakkaluun ñoom de ci seen boroom la ñuy lu noona noonu la la waxoon ci saar bi kon imaan ay mbir yu bari lay doon yuy tase ci nit ñu soog a mu soog wax ni am na iman arab yi yàlla ne leen bu leen fi waxati gëm ngeen de ne leen wommatu nañ daal aslam naa dugg nañ ci lislaam ji waaye nag imaan gu wér ba tax looy defati looy waxati koy séqal koy jëflanteel soo wéetee di jaamu sa borom soo wéttalikoo di jaamu sa borom sooy woor sooy aji makka sooy julli sooy génne azaka sooy jàng alquran sooy saraxi lépp nga def ko li wajhillaahi taala loolu iman moo koy def ci nit yàlla nag ni yéen ñooñu wax nag ni am ngeen iman googu kaay ma wax leen bu ngeen ko bëggee am lu koy confirmer mooy atiicu llaha wa rasulahu topp leen yàlla ak ko bu yeneen tam boo boo amul dégg danga nga naan dafa yamale yàlla yàlla dafa yamale boppam ak yonent bi ndax dafa ne atiyo laa rek dool foofu benn waaw nga def ko waaw at fin ni wa atiyo rasul topp yonent bi alayhi salaatu wa salaam doo ko dégg dégg noonu mooy topp leen yàlla ndax moom lañu war a topp waaye ngeen jël yonent bi alayhi salaatu wa salaam comme model comme référence mu won leen ko ndax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun na atiyo allah wa atiyo rasul da nga koy dégg ci alquran taatullahi da koy xam ni topp yàlla mu ngi nekk ci topp sa ndigalu wajur eh, topp sa wajur mais jublu ci topp sa wajur comme ni ngay toppee yàlla déedéet kon mu ne ngay topp yonent bi mu ne la tawallaw anhu bu leen dëddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku ko dëddu yaa ngi ci danger ku fi bàyyi jàngaleb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi système bi mu tëral bàyyi yoon wu maandu wu jub wu sérieux wi mu tëral ngeen ko fi tegg di ut saw yoonu bopp da ngay sonn wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan ku fi bàyyi yoonu yàlla wi ak tëralinu yàlla wi muy mu jaarale ci sallallahu alayhi wa sallam bi waasitati jibril alayhi salaam mu indil ko yonent bi sallallahu alayhi mu indil ñu ko mooy alquran ku ko dëddu di nga am dund gu karaj gu metti gu jafe fa inna lahu maishatan dankan gis nga baat bi ni mu diise dankan mooy dund gu diis ngay am dund gu metti dund gu xat dund goo xamante ni di nga xam ni yàlla ku ko fi bàyyi sonn de sunna rek mbaa sonn maa la wax loolu de sunna mbaa sonn ku dundul sunna da ngay sonn waaw sunna mbaa sonn sunna soosu nag soo ko bëggee dund kenn moo lay wax ni nga koy dundee mooy sallallahu alayhi wa sallam moo tax mun la wa rasulahu waaye nag mu ni bu leen ko dëddu bàyyi fi sunnaam si de boo ngeen ko defee wa antum tasmauna fekk nii yéen a ngi dégg <laughs> nee na bu leen def lool de yéen a ngi dégg ñu leen di jàngal alquran ngeen koy dégg ba pare dëddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam woon ko ginnaaw yéen ngi ci danger mu ñëwaat ci baatu gis nga dafa ni la wa antum tasmaun moo tax bu dikkaat ci baat bi ni la wala takunu bu leen mel ni kalladina comme ñi nga xam ni xaalu dañ daan wax naan sami'na dégg nañ wahum laa yasma'un te fekk na ñoom dégg dégguñu dégg benn mbir la waaye déglu beneen mbir la nit mën na di dégg dala am na koo xam ni yéenay toggandoo fii muy dégg léegi ñu fiy teg ay musique yàlla daf ko ko bëgguloo dafa xam waykat yi woykat boo fi jël ci waykat yi woy xam na leen maîtriser na seen woy da koy dégg waaye da koy déglu parce que daf ko xam ni ki doon noonu am na koo xamante ni kat moom jàngikat yi xasida yi moom la moom la miin boo toogee da koy dégg waaye da koy déglu kon yéen ñaar yéen a ngi toog di dégg waaye kenn ki mooy déglu waaye kenn ki dégluwul ndax nit lu ko saful du ko déglu du ko xam kon am na ñoo xam ne sax dégg nañ waaye wum laa ismauna waaye dégluwuñu ba jéem a xam li ñuy dégg lan la leen jariñ kon maanaam dafa mel ni ñoom seen nopp yi dafa tëx moo tax yàlla pare ci loolu rek teg ci aaya bu garaw yéen a ngi seen saar sotul anfal aaya 21 ñu war a jël aaya 22 ci yéen ñi ànd ak ñun ci tafsirul quran bi yàlla ne inna charra dawaabi inda allah nee na li yées ci liy dukkat ci kaw suuf la la wax kon liy dukkat nit a nga ca jinne nga ca maa nga ca nag baa nga ca yépp lépp jaan jay dox ci suuf lépp lépp loo fi gis rek luy dukkat la ci kaw suuf si mu ngi ci kaw suuf yépp nee na nag xam nga buñ ma saan di wax dawaab liñ ko miine mooy xar ya moom lañ daan wax daaba ya ndag ya fas ya mbaam ya yooyu bu demee nag ba yàlla utiliser baat bi ba pare dugalaat ci doomu aadama c'est parce que day duggal ci kaw suuf waaye daf ko dafa dafa wàcc dafa wàcc fa mu nekkoon moo tax ñu boole ko ci daaba yi rek benn yoon gis nga foofu yàlla nag ni lii yées ci daaba yi ndax ba dañ nañ ko wax nit wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi risquha lépp luy dukkat ci kaw suuf yàllaa yor wërsëgam nit a nga ca biir xara nga ca biir ginaar a nga ca biir gunóor gaa nga ca biir lépp nga ca biir bu ne li yées ci liy dukkat ci kaw suuf ci borom bi subhanahu wa mooy lan as summul bukkum mooy ki tëx ba du dégg dëgg lu ba du wax dëgg muy ñaar yu garaaw ñaar yooyu la borom bi subhanahu wa taala utiliser maanaam ki tëx jubluwu ci ki nga xam ni noppam dafa tëx waaye mooy kii dul nangoo dégg dëgg suñu maam ju baax ja alxuraan dafa yéeme ci firi maam cheikh al islam ibrahim ñas maam Baye dafa masa tase ak benn borom xam-xam nee nañ ci jamono kooku ni ko yéen de da ngeen di firi alxuraan mun ko waaw mun ko amuleen sañ-sañ bi amuleen droit firi ko ci doon wax ak moom yàlla dafa dogaloon silmaxa la bi mu waxee loolu baay maam Ibrahima Niass ni ko waaw yàlla dafa wax ni ci alquran képp koo xamante ni yaa ngi doon dund fii ci àdduna doon fi silmaxa nee na alaaxira noonu ngay silmaxa loolu noo koy firee waaye am problème parce que xamal ko di ko yàlla jubluwu ci silmaxa bët waaye ki nga xamante ni dafa silmaxa ci ci xelam nanguwul a gis dëgg nanguwul a dégg dëgg nanguwul a xool dëgg nanguwul a wax dëgg noonu lay dekkiwaale mun ko may loolu est-ce que bu ñu ko firiwul woon nit ñi dañ ko déggee noonu bu doon baat bi rek la ñu firi bu doon baat ba na mu fa nekkee rek te saraawuñ ko leeraluñ ko est-ce que dinañ ci am dégg-dégg boobu moo tax suñu mag ñi kenn du ñoom suñu mag ñi man nu leen fii nit di amee ba pare di leen xeeb wala di leen doyadil wala di la leen di fees sa bët sax daf maa jaaxal waaw Seydi Cheikh Ahmed Tidiane si ndeysaan Serigne Cheikh maam Cheikh mu baax ma ndeysaan daan na wax almaktum daan na wax nii arab yi ñoo ñu gënoon mag magi démb waaye ñun ñoo leen gën magi tey waaw waaw suñu mag ñu baax ñii ñoom suñu réew mi ah neexu ñoo gën de jàmbaare nañ de seen dund yépp dañ koo jox yàlla seen dund yépp dañ ko jox xam-xam yàlla yàlla fayal ñu leen mu ni kon as mooy ki nga xamante ni noppam yi fas yéenee dëgg-dëgg xam ngeen saa yi ngay wax ak nit du la faale nga yow looy mel ni yow ku tax nii taxul de xam nga ni taxul waaye ñàkk dégg li nga koy sant nga jàppe ko ni moom dafa mel jëf-jëfi ku tax ku déggul loolu am na lu rëy lu muy firi am na lu rëy lu muy firi mun kon kenn kaa ngoog keneen ki mu ne al bokk mu koo xamante ni du wax boo jubloo lu mu jublu ci wax mooy du wax dëgg du wax dëgg ni mu ñàkkee déggee dëgg noonu la ñàkk nangoo waxee dëgg yàlla ñooñu mooy ñan mu ne alladina laa na mooy ñi xeluwul képp koo xam ne nanguwul a dégg dëgg nanguwul a wax dëgg te aussi ni nga war a déggee dëgg noonu nga war a waxee dëgg parce que di nga gis nit ku fekkee ñaari nit ñu jote moom mu xam ni diw mii moo tooñ waaye kamu tooñ moom neexul ko maanaam moom moom mi fekkee xam mbir mi xam ni bu ko waxee li wax dëgg rek xam na ki tooñ waaye kañu tooñ ko neexul ñu ko waxee daan non man moom dama ci bëgg man man dama ci maandu bu leen ma dugal ci mbir mi maandu woo tu n'es pas sérieux doonoon nit ku sérieux maandu woo ndax ki nga xam ni moo moom dëgg gi moo la neexul moo tax nga noppi kooku al bukk mu la foofu waaye bu fekkonte ni ca kadeen ca ca des la bu doon moom mi nga xam ne moo am dëgg moo tooñ kenn du doo xaar sax ku la laaj seede yaay waxal sa bopp kon ba ànd woo sax mu ne alladina mooy gaa ñi nga xam ne xeluwuñu xeluwuñu jëfandikoowuñu seenum xel yàlla subhanahu wa nii walaw alima allahu fihim xayran la asmaahum yàlla mu ni boo ko firee danga naan su yàlla xamoon ci ñoom yiw dina leen déggal kon boo amul dégg danga naan yàlla mën naa am dafa xamul ci dafa dafa dafa am loo xam ne da koo umb déedéet dafa xam bu baax moom yàlla dafa xam ni ñii ak yiw ak ko mbaax du nekk ci ñoom waaye doo ko fi ne ni su xamoon nii mel ni yàlla dafa am lu ko umb xam na ko xam na ni ñii nii dong lañuy mën a mel moo tax du lancement kon mun ko kon mu déggal déggal leen ba ñu mën a dégg ba bu ñu leen waaree ñuy déglu wax ci muy dugg ci ñoom inna la ndax bu dul lool da ngay bokk ci inna alladina kafaru sawaun alayhim a anzartahum am lam tundirhum laa yuminuun yal nañ ci yàlla musal mu ne walaw asmaahum su fekkoonte ni da leen déggal dégtal ba ñu dégg yàlla nee na xam naa ni sax bu ñu déggoon it la tawallaw wa hum mu'ridun dinañ dëdd wane ginnaaw te du ñu faale li ñu dégg loolu lu tax aaya boobu wàcc dañu wax ni ñenn ci yéefari Màkka dañoo waxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko danga ñuy dekkalal benn maam bu ñuy wax ko say su dekkee moom ku ñu barkeeloon la maam la ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñun ko soo ko dekkalee mu ñëw ni ñu yow yàllaa la yónni ñun ñu gëm la dekkal ko ak position bi xusay nekk ci maamu yonent bi kon des générations et des générations ñun ko maam jooju ko déggoon nañ ni ku baax la ku yiw la woon ku yàlla barke lool la moom ngay dekkalaat bu ñëwee ñu ni ko maam xusay dañ lay laaj ndax waa ji nee na sax sëb sët la Muhammad mii ndax yàllaa ko yónni su nee ñu waaw bu ko dëggalee ñu gëm la soo mënul lool nag gëmuñu la yàlla ni ko wallahi wallaw asmaahum bu ko dekkaloon ba ñu waxit ñu dégg du tee ñoom dañuy lànk bu ñu déggoon xusay wax loolu ñu dégg wax mu leer du tee dañuy wëlbatikuwaat lànk wane ginnaaw te du ñu la topp yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ñii bu la stressé yépp na yenent bi bu ko yàlla di defal yi tas li yàlla da koy def koy dëfal xam nga xam nga dafa metti nag di waare te nit ñi duñu nangu loolu loolu neexul de neexul de yàlla na xamal ko nag ni ko nag bu mu la yem bu la yéem noonu la ñu mel noonu la ñu mel te nag waruñoo mel noonu de nit li ko war mooy suñu ko waaree dafa war a waaru dafa wara dellu ci boroomam moo tax mu ni yaa ayyuhal ladiina aamanu la ci teg gis nga li ma leen waxoon ci ci yaa ayyuhal ladina amanu ni mu bare ci saat bi yàlla ni yaa ayyuhal ladina amanu yéen gaa ji gëm yàlla istajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum li maa yuxyikum loolu dong sax la ñu mën a indil nag nee na yéen ñi gëm yàlla wuy leen wooteb yàlla bi wuy leen wooteb yonent bi sallallahu alayhi wa su fekkente ni woonal leen ci luy dundal seeni xol ñoom du ñu woote sax ci lu dul luy dundal xol nag moom war nañoo xam ni suñu boroom li mu jox yenent bi alayhi salaatu wasalaam ba yenent bi alayhi salaatu wasalaam indi ko mënul doon lu dul lu baax lu dul la gën kon su leen yàlla woowe wala yenent bi alayhi salaatu wasalaam woo leen dañuy boo demee ci mufassiroon dañuy wax ni Saïd ibnul Maala nee na dafa am bis muy julli ci jàkka ji yonent bi sallallahu alayhi woo ko wuyu ko ndax boobu mu ngi julli bi mu paree mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko man de dama doon julli yonent bi ni ko xanaa yàlla waxul istajibu lillahi wa lirasul ida daakum benn ngoog ñu jëlee ci abu hurayra mu ni yonent bi alayhi salatu dafa génn ci ubay ibnu kaabin fekk ko muy julli yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko yaa ubay woo ko mu ni ubay wuyuwu ko ci kàddu xaw na gestu rek waaye wuyuwu ko mu mel ni yonent bi nekk ci wetam mu def nii rek waaye ubbiwul gémmiñam pour wuyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ah, ubay xam ne yonent bi ko doon woo mu gaawal julli gi def ko julli gu woyof ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko assalaamu alayka ya rasulallah nuyu yonent bi sallallahu alayhi bi ni ko maa manaaka yaa ubay an tushibani id daawtuka yow ubay lan moo tee nga wuyuma bi ma la woowee mu ne ko yaa rasulallah kuntu fi salaa yow sang bi yow mi yàlla yónni yow ndawul yàlla man damaa ne woon di julli yonent bi ni ko xanaa nekkul ci li yàlla wàcce ci waxyu ci man ma indi leen ko istajibu lillahi wa li rasuli ida daakum li maa yuxyikum ubay ni ko ah kay ba pare ni ko gis nga saxaaba yi ni ko balaa ah kay dikk na de wala audu insha allahu dootuma ko defati mukk loolu nag day wane sax yàlla fonk gi fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di kuy julli yonent bi sallallahu woo la ñu ni la wuyul yonent bi sallallahu loolu moom rek moo ko am de damay bañ nit profité ci ni dégg nga la ñu wax yonent bi ak ñooña kon man it su ma la wootee man kat maay sab sëriñ maay lii maay sab lii da maa war a wuyu déedéet doo wuyu de déedéet jullil soo paree nga wuyu jikko ndax dafa am yoo xamante ni yàlla da koo jagleel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu leen woowee ci loo xamante ni day defar seen iman ndax kat alkaafir mayit yéefar bi dafa dee kon woo buñ ko woowee ci luy dundal xolam dekkal ko dafa war a wuy si loolu nag mooy alquran mooy dundal xol yi mooy dundal xolu julit mooy dundal ki nekkul woon jullit sax bu ko yàgg dégg loolu day koy dimbali mu ñëw boo gisee Walid ibn Mughira li ko ndaroon na dal alquran la rek toog dégg yonent bi wa najmi ida hawa maa dalla saaxibukum wa maa xawa wa maa yantiqu an il hawa in huwa illa waxyun yuuxa allamahu shadiidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى الشجرة gis nga mu dégg neex neex ni mu tem temee wax ji da koy dégg même boo jàngul alquran da yëg nii ni ñu ko nosee neex na lool mu ne ah lii de du waxu nit de lii ma dégg inna lahu la xalaawa wa alayhi la talaawa lii de neex na te am na tem-tem te boobu yéefar la dem ñoo ko abu jëlin abu jëlin ko ah kon loolay waneen dugg nga ci diineem ci kon yow da nga gëm Muhammad mun ko gëw ma ko mun ko kon loo loo loo naan waxam jooju du waxu du waxu nit su dul waxu nit waxu lan la kon na bëgg gëm yàllaam ji topp ko topp ko topp ko Mawalé ko en tout cas daal man daal waxuma waxuma ni gëm naa ko waaye daal xam naa lii ma dégg moom du waxi nit mais Abu Jahlin dafa bon bàyyiwu ko de topp ko topp ko ba mujj gi ak rëyuk arab jàpp ko ceddo gi jàpp ko ñu baal ma ceddo gi jàpp ko kéefër gi mu nekk ci moom mbon gi nekk ci moom dugg ko yàlla ne innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar summa qutila kayfa qaddar summa nadara summa abasa wa basar summa adbara wa stakbar fa qaala in hada illa sihrun hada illa qawlul bashar kon nattu la yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañuy teel a nangul yonente bi alayhi mu ne xam leen ni wa alamu xam leen nii anna allah nekk yàlla yaxuulu mooy dox baynal mar'i wa qalbihi diggante nit ki ak xolam foofu yàlla fay dox yenn saa yi de moo dox ci baynal mu'min wa baynal kufr yàlla fay dox mooy dox sa digganteeg mooy yàlla sa digganteeg lépp moo tax yéen tamit daan wax yàlla yow mi nga xamante ni yaay yaay wëlbati yaay ne suñu xol yi yàlla na nga ko façonné jëme ko ci al iman wa taat ci gëm la ak di la topp waaw loolu rek lan lay ñaan. Saïd ibnu Jubayr nee na yaxulu bayna al insaan wa qalbi fala yastati an yumina aw yakfur illa bisni moom nee na noonu la ko firi ngi imaan yàlla moo koy def ci nit mooy seetaan nit ki mu sànku yàlla bu mu ñu seetaan yàlla bu mu ñu baw ak suñu bopp saa su ne yàlla na nañuy téyeel ay mbiram moom borom bi subhanahu wa di wëlbati suñu xol yi nam ko neexee di ko di ko walbati ci saxal ko waaw comme ni ko yonente bi daan wax allahuma musarrif al qulub thabbit qulubana ala taatika yow miy wëlbati xoli doomi aadama yi yàlla na nga saxal suñu xol saa yoo ko wëlbatee rek wiiri wiiri gune rek na dem na dem ndaari muy iman lool la lay ñaan yow yàlla subhanahu wa taala mu ko loolu yàlla koy def mu ni wa annahu ilayhi tuhsharun na ngeen xam ne ci yàlla ngeen di dellu pang mi ci yàlla la yàlla mi nga xamante ni mooy dox suñu digganteeg suñu xol yi nee na pang gi dellu gi wëlbatiku bi lépp ca borom ba subhaanahu wa taala la ñuy dellu waaw borom boobu nag ñuy dellu xam ne bu ñu pang mi ñëpp ñu dajale waat li li li aw li yowmul xashr bis boobu nga xamante ni ñëpp dañuy dajaloo wala dem ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala ñëpp di ñëw ku bëgg ak ku bañ force da ñëw mu ne kooku day mooy dellukaay ba kooku day mooy régler jaam yi ku def lu baax mu fay la ku jëf safaan ñu ñu mbugal la yàlla bu ñu ca mbugal mu ne wattaqu fitnatal moytu leen fitna moytu leen fitna da ko def nakira nag nakira waxul wattaqu al fitnata waaye dafa ne wattaqu fitnatan moytu leen fitna kon da nga ciy dégg ni dafa yaatu dafa yaatu muy yàlla sax fitna la histoire fitna la ñàkk di julli fitna la ñàkk di woor fitna la ñàkk di jaamu yàlla fitna la nekk ci lu leen neex di fawe diine di ko caaxaani fitna gudul jeex la taxu fitnatal mu ndax li tax ñu war koo moytu mooy laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa ay du ci bopp boroom waalamu xam leen ni anna allaha shadidul iqaab yàlla ku tar mbugal la sadaqallahu alazim nee na waalamu xam leen ni gis nga ay du yem ci bopp bor moo tax nit buy def lu bon nit buy def lu safaanu nañ ko ko teel a xamal ni ko lii ngay def du nii nañ ko ko tere yonent bi wax na ko ci masalul qaa'imi ca xadis bam ki nekk ci li neex yàlla ak ki nekk ci li naqari yàlla te ki nekk ci li neex yàlla di seetaan ki nekk ci li naqari yàlla dafa mel ni ñu nekk ci benn bato ñi nekk ci suuf ñi nekk ci kaw ñi ci suuf ñi si bu ñu bëggee ndox dañuy yéeg ci kaw uti fa ndox ñu dem ba si yàgg ni sonn nañ ci yéeg bi dañuy bënn gaal gi ndox mi di dugg rek benn yoon ñuy jël mun nañu ca kaw bu leen bàyyee ñoom ñëpp ñooy dee alku bu leen téyee nag boobaa dinañ mucc kon mu ni kon kuy nekk ci lu neexul yàlla dañ koy wëñ wàññi alaykum anfusakum laa yadurrukum man dalla idha tadaytum Abubakar nit Siddiq nee na mooy da ngay digle lu baax di tere lu soo ko diglee tere lu ba pare waa ji nekk ca ko neex nag boobaa nag laa yadurrukum man dalla idha tadaytum mu ni kon moytu leen ndax ay du yam ci bopp boroom waalamu xam leen ni anna allah naka yàlla la iqaab ku tar nu mu mbugale sadaqallahu azim yàlla nañ yàlla musal ci mbugalam yàlla bu ñu mos ci mbugalum yàlla lu ndaw bu ñu ca mos lu bari yàlla nañu bokk ci yàlla di jéggal di leen yërëm kon nag ñu ñëpp nañ ci déggee ni dañuy digle lu baax di tere lu bon teg leen foofu seen baaram su ñëwee sof la ñu sosoon aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh قلوبنا واجمع